ñoo ngi lay ñaan bala ngaa seetaan sunu vidéo nga daal di abone bës cloche de notification bi pour vidéo bu ñu dugal rek mën cee jot seen information bi leen di jox xibaar yi wér te wóor. boo ñëwee ci ressources yi ressources yi nga xam te ne moom lañu yàlla jox géej gi lafa nekk ci ay xeetu jën lafa nekk ci ay ressources ci pétrole ci gaz ci ay xeetu jën yoo xamante ne nii tey jii tey bu ñu fexoon ba suñu géej gi li ñuy jë contrat yi ñu jël jox ko tubaab yi ko. ah mais teg suñu ay ut suñu ay bato de pêche bopp yoo xamante ne ñun ñooy nappal suñu bopp ah am am nañ moyen bi ndax bu ressource boo ko yoree ci say suuf am nga moyen ndax partenaires yaa ngi taxaw soxla bëgg a liggéey ak yow pare pour génnee xaalis financement da nga koy am par la force léegi lépp da nga koy nationaliser ah nga créer ay ay ay yoo xam te ne ay pots de sardine la ñuy defar yoo xam te ne jën yi dañ koy transformer ba pare boo ko transformer ba pare servir li ngay servir sa réew ko jaay ko bitim réew nga xam te ne yow la nga waroon jaay brut da nga koy jaay da nga koy transformé ba war a jaay ko mu ëpp xaalis yaa ngi dégg sa or sa pétrole sa gaz sa zircon sa phosphate yooyu yëpp nga nga fexe ko nationaliser. am nañ ay borom yi xam-xam yoo xamante ne partout dans le monde boo demee ca usines yiy defar oto yi dañ fa fekk ay sénégalais usines yiy defar ay avion dañ fa fekk ay sénégalais usines ay bateau dañ fa fekk ay sénégalais usines yiy liggéey ci wàllu yëngu ci wàllu pharmaceutique dañ fay fekk ay sénégalais ñiy liggéey ci wàllu yëngu ci wàllu médecine dañ fay fekk ay sénégalais partout domaine boo laal partout dans le monde boo demee fekk fa ay sénégalais ñu doon ay génie ñooñu leen bàyyi leen kenn ku ci nekk démarrer sa bopp kenn ku nekk samp sa yëfi bopp affaire bi avancer nonu lañu yoré rew réew jël sa lepp lu sa rew mom mom nga jël ko jaay ko tuba bi di yalwaat Macky Sall lool la fi nekké bu ñu waxé ñu ngi tabax ay ay tali yo xamante tane bo défé tali yo xam dañu yow ay canalisation yu baax tout temps inondation tout temps inondation té ndox mi bari ndox mu bari mi di ta ah, ñu waron ko mëna a yoon mu mu jaar ba dem ci àll ba baykat yi yëriñoo ko waaye déedéet ci la koy bàyyi muy saturé ci kër jàmbur yi di inondé kër jàmbur yi di yàq yi nga xam ne ñaa ngi ko tabaxoon ça sert à quoi ça sert à rien Macky Sall il est nul Macky Sall wax dëgg fa yàlla xamul dara man moom duma ko saaga mais xamul dara